aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di siyaare bu baax tey am maanaam yéene ci commencé ab téere boo xamante ni benn la ci téere yi Sëriñ Tuubaa yi ngir liggéeyal ci suñu borom subhaanahu wa taala di ñaan tamit képp koo xamante ni jariñu jariñ jariñu na ci rek mu ñaanal ci tamit mal yàlla ak njéggalam ak yërmaaneem te xam ne yàlla rek tax ñu koy def ak liggéey ci bu baax Serigne Touba bismillah maanaam téere nag téere bi mu ngi tudd Jawharu Nafis mu nekk téere bu am solo nag boo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu fiq boo ko jàngee te dégg ko lu bëree bëri da nga ko ub ci ubbeeku nii ci sa wàllu diine am na solo lool waaw am na solo lool ci mag ak ndaw ñoom ñëpp <coughs> bismillahi rahmaani rahim nee na mubaarakul ibtidaai Mm, maanaam lu ñu barkeel la ci ab commencement may munul intihaa it nag lu ñu barkeel la tamit ci ab yamukaay bismillahi maa ngi tàmbalee ci tur yàlla arrahma bismillahi maa ngi tàmbalee tur yàlla samay wax ak samay jëf arrahman yàlla mi nga xamante ni mooy arrahman arrahim tamit yàlla mi nga xam mooy arrahim tamit mu ne bismillahi la ko commencé bismillahi maanaam yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne lépp lu ngeen di def tamuy lu baax rek commencé leen ko bisimilah. <coughs> arrahman nag yërmande la joo xamante ni suñ borom daf koo jagleel mbindeefam yëpp ci kaw àdduna kay gëm ak kay mooy ñëpp ci yemoo waaw ka gëm ak ka yàlla ñëpp ci yemoo rahmaan gi moom maanaam ñëpp la ñoo ko ñoo ci bokk yem arrahim nag yërmande la joo xamante ni ëllëg yomal xiyaam la waaye nag ña gëmul yàlla képp ca bokk ka gëmutoon bokk ca wasalla yàlla doolu tere allahu yàlla ala sayidna suñu sang muhammad muhammad nabihi kay ab yoranteem wa alihi ak ay ñoñom wa sahbihi ak i saxaabam wasallam tam dooli ko wóolu taslima doolli ak wóolu julli ci yonent bi sallam ñaan suñu borom doole ko teraanga ak jàmm moom ak ay saxaabam ak ay ñoñam mooy ñoñam mooy ñi nga xamante ne ay waa këram lañu woon jamonoonte woon ak yonent bi sallam gëmoon ko toppoon ko àndandoo moom <clears throat> allahuma yow buur bi aslix yàlla nga yëwénal ummata muhammadin xeetu muhammad solo yàlla loolu teel allahu yàlla alayhi wa sallam tam doole ko wóolu allahuma yow buur bi farraj yàlla nga wuñ ñu njàqare an ummati muhammad ci xeet muhammad salla yàlla loolu allahu yàlla alayhi wa sallam tam doole ko wóolu <coughs> allahuma yow buur bi irham yàlla nga yërëm ummata muhammad xeet muhammad salla yàlla loolu teel allahu yàlla alayhi wa sallam tam doole ko wóolu yow suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi lay ñaan nga yëwénal maanaam mbir yi maanaam sa yonante bi nga xam ne sallallahu alayhi aw xeetam maanaam xeetu yonante sallallahu alayhi wasallam yàlla nga seeni maanaam seeni mbir te it yàlla nga wuñ ñu tamit seeni njàqare teggal leen seeni njàqare ñoom ñëpp te it yàlla nga yërëm xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam aw sa ndimbal yaa mu iinu yow aji dimbale ji bi ci yow nastainu la ñu sàkkoo ndimbal laa xawla déet pexe wala xuwata déet kàttan illaa billahi ndar yàlla al aliyi bi aji kawe al azim it aji màgg mu ne ko yow suñu borom subhaanahu wa taala ñi sàkk ci yow ndimbal yow mi nga xam yaa aji dimbale ji te ci yow képp la ñu ndimbal ndax kat amul benn pexe boo xamante ni jaam bi mën na ko def ba moytandiku ak mooy yàlla waaye na amul beneen kàttan boo xam ne tamit jaam bi dana ko def ba tax maanaam mu topp suñ borom na xam noonu la ko suñ borom bëggee lu dul lu ne maanaam suñu borom moom moo la dimbale yàlla mi nga xamante ne mooy al ali di al azim xasbunaa doylu nañu xasbunaa doy nañu allahu yàlla wa ni'mata amul morom al wakiilu yàlla mi ñu wakkeelu yàlla doy na ma te man it doyloo naa ko mooy xasbunallahu wa ni'ma al wakiil <clears throat> qaala wax na al faqiiru aji aajowoo ji ila ibnu xabib ibnu xabib ahmad te mooy ahmadu bamba léegi nag ki nga xam day taalif muy Serigne Touba day njëkk xamle boppam moom mooy kan ci njëlbeen téere bi mu wax ne kii taalif moom moom ab jaam la boo xamante ni aajowul lenn lu dul boromam subhaanahu wa taala di maanaam tudd Ahmadou Bamba di doomi Habibullah muy maam Balla <clears throat> ahmad dinaa sant rabbal waraa borom mbindéef yi xam dan cant yaddu boobu dana sax mu salliyante mbir mu may aji julli alal faqihi ci aji dégg fiq alhaadi tey aji ginde muhammad te mooy muhammad sallallahu alayhi wa wa kullu zijtihaadi ak képp ko xam boromu farlu maa ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala sax ba di julli ci ki nga xamante ni mooy alfaqih di ki nga xam mooy aji gindekat mooy aji ginde ji te kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko suñ borom doole teraanga ak képp koo xamante ni maanaam boroomu farlu la di góorgóorlu ci maanaam tegu ci yoon wi nga xamante ni moom la sallallahu alayhi wa digle maanaam ñu jaar ci muy yoon lislaam xasa ginnaaw wa inna naka man saraftu nag walbët na xammi sama yitte yépp nag li aqdi nathril axdari ngir fas bisarul axdari alxarmi ka di li kay yakkuuna ngir mu nekk tox fatan di ab may li kulli man ñeel képp koo xamante rek araada bëgg na xifdahu ak mokkalam min abna zaman ci doomi waa jamono <coughs> nee na ginnaaw bi ma jullee ci bi ma sant yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa li nga xamante ni moom ma tax a jug na muy moom lima ma yitteel muy fas wisarul axdar yi maanaam li nga xam moom mooy téere bi nga xamante ni mooy al axdar yi te Abdurahman daal di koy taalif moom nag laa jug ngir woy ko ndax téere ba Abdurahman daf ko wisaroon al axdar yi muy téere bi miir muy al axdar rek daf ko wisar wisar nag day xaw a jafe mokkal sëñ mi ne daal dama koy woy def ko muy loo xamante ni day mel ni rek dañ la ko may nga xam day yomb mokkal waaye ko noo xam ne day yomb mokkal nga xamante ni képp koo xam ne ci doomi waa jamono waa jamono képp ko bëgg mokkal rek dañ ko mën a mokkal ndax dana yomb yomb boo xamante ni day mel ni rek luñ la may nga xam day mel ni ab cadeau boo xam ne dañoo jël jox ko may la ko nii nga xam day yomb lool nii caw ngir nga mën ko mokkal <coughs> mu'taziran tey aji dogal ngànt li kulli xibrin ñel bépp fóore si adabin tey boromi teggin xabirin nax wi te aji dégg nax wa ak arud wa adab ak luxa nee na ba tey maa ngi balo ak di képp koo xamante ni maanaam boroom xam-xam la boo xamante ni ñetti fànn yi xam-xam yi maanaam géeju na ci mooy naxw ak arud ak luxa ñetti fànn yi ki nga xam géeju na ci maanaam kooku moom saa boo xamante ni liir na sama téere bii gis ci loo xamante ni maanaam daal jàpp na ne daal moom ab ab yàq la daal wala dama ko nii laa ko waroon waxee wala nii lañ ko waroon waxee kooku maa ngi koy jéggulu ci maanaam loolu moo gis njumte boobu waaye nag loolu moom sëñ bi daf ko wax rek ngir woyofal boppam waaye wax dëgg mën na sëkk téere mën na sëkk amul lenn loo xamante ni nekk na ci waaye sëñ bi daf ko wax nii rek ngir maanaam woyoflu wa asalu may ñaan allah yàlla rabbi sama borom alxabula ak nangu wala awna ak ndimbal wa tawfiqa ak dëppale wala wusula ak yegg yaa maa ngi ñaan suñu borom mu nangul ma téere bi dimbale ma tawfiqal ma may ma ak yegg ci moom wa an yakun ak mu nekk raaxata sixaar yi di laayu ndaw ñi aban ak képp koo xamante ni ixtaaja aajo woon na ko laxoo ñeel ko minal kibaari ñi mag ñi nee maa ngi ñaan suñu borom téere bi mu def ko muy nooflaayu xale yi maanaam ndaw loo xamante ni sam jàng ci da cee toll mu nekk nooflaay ci yow nekk lu yomb képp koo xamante ni mag la te am njàngam toll toll ci moom it suñ doon defal ko mu nekk nooflaay ci moom yomb lool ci moom <clears throat> sa maytuhu tuddee naa ko bil jawhari nafiis ci jawharu nafiis fi aqdi nasril axdari ci fas wisarul axdari ar raisi ka di kilifa léegi nag téere bi maa ngi ko tuddee jawharu nafis mooy wurusu kàññeeru mooy wurusu foor am solo lool léegi nag téere bi nga xam mooy nas maanaam alaxdar yi te abdourahman daal di koy taalifoon daal di koy wesaroon moom laa jël woy ko aware nag tuddee ko maanaam jawharu nafis muy wurusu gàññeeru awalu ma jël benn la xamante ni aw jabahu waral na ko arrahmaanu yàlla mi nga xam mooy arrahman xataan ci lu dog xataan ci dog lu dog mooy lu amul benn werante alal mukallafi ci ci mukallaf al imaan mooy gëm nee li nga xamante ni suñ borom moom la njëkk a waral ci doomu aadama bi saa boo xamante ni dem na ba nga xamante ni mat na mu li yàlla njëkk a waral ci moom mooy na fas yéene jàng xam noo xamante ni moom lay wéralee ak ngëmam ci yàlla waaw kon bi nga nekkee mukallaf suñ borom waralul ci yow maanaam dem wutib xaalis wala dem nangam nangam wala yeneen ak yenan daal waaye li suñ borom njëkk a walal la li njëkk a war nga xam suñ borom moom la njëkk a war ci yow te amul benn werante loolu mooy nga dem jàngi ngir li nga xamante ni mooy imaan li nga xam mooy tawxiid muy pas-pas ni nga war a pasee suñu borom subhanahu wa nga jàng ko ngir xam ko mën a sa ngëm ci suñu borom subhanahu wa taala su mata maarifatu topp mu xam la nga xamante ni yuslixu dana yëwénal dana yëwénal bi ci moom fara idal ayni faratey jëmmam jamian mboole seen fanta bi na nga yeewu neen su ko defee tamit mu fas tamit xam li nga xamante ne mooy faraidul ayni yi daa am loo xamante ni fardul ayni la am loo xam fardu kifaaya la li nga xamante ne fardu ayni la loolu kenn mënu la koo defal yooyu rek yaa ko mooy defal sa bopp mu wàcc la waaye bu ko nit ñëpp defoon it moom du tax mu wàcc la yow yaa koy defal bopp rek mu doog lay wàcc loolu nag dana ci joxe ay misaal <coughs> hmm. ka saw sawmin ni mel ni atteb koor wa tahaaratin ak laab salaatan julli fardan farata wa naflan ak naafle wa ka ak lu mel ni aj wa zakaatin ak azaka nee lu mel ni koor hmm, la nga xamante moom moo ca war muy atte maanaam la war lépp farataam hmm, ak sunna ya yëpp nga xam ko la war lépp mel ni laab tamit farata ak sunna yi julli farata ak moo xam muy naafile moo xam muy julli farata aj maaka tamit noonu azaka tamit noonu lépp loo xamante ni rek moom ci faraidul ayni la bokk te muy koor laab julli aj maaka azaka yooyu kenn mënu la koo defal maanaam loo ci xamante ni da nga ko war defal yaa ko defal sa bopp mu wàcc la waaye bu ko nit ñëpp defoon mu des yow it du tax mu wàcc la li nga xamante ni mooy fardul kifaaya nag moom moom bu ko ñenn ñi defee rek wàcc nañ ci des lu mel ne jullee ab néew bu ko ñenn ñi defee rek wàcc nañ ci def ñi des ñëpp waaye tamit bu ko ñëpp bàyyee ñëpp maasi am bàkkaar saako xam-xam tamit farata la ci ab jullit waaye nag li nga xamante ni mooy ci farata mooy li nga xamante ni kenn mun la ko defal nga xam fara ay dul ayni la kenn mun la ko def yaa ngi ma des bopp loolu moom yaay góorgóorlu ngir xam ko loolu moom farata la ci yow da nga koo def ni boo xamee loolu na pare nga jàll ngir géeju ci xam-xam loolu moom euh, bu ko ñenn jëfee rek wàcce nañu ci des maanaam ngir géeju ci xam ngir keneen ko am masala rek su dikkee rek euh, laaj la nga gindi ko ci loolu ko ñenn jëfee rek wàcce nañu des summa alayhi topp mu war ko an yu xaafisa mu sàmmonteeg ala xududi rabbil arsi ci daytali borom xaras jàll màgg na wa ala tam kawe nee tamit ba tay mu fas tamit watan sàmmonteeg bu baax a baax li nga xamante ni mooy maanaam digale suñ borom yi li suñ borom digle mu def ko lim tere mu bàyyi ko suñ borom moo maa xalaxtul jinna wal insa illaa liya'budun maanaam bindu ma nit ak jinne lu dul njaam kon suñu borom daa bind aw yoon rëdd ko ne maanaam fii bul ko maanaam ko weesu daal maanaam lii moom defal li bàyyi lii yooyu nag yëpp rek mu sàmmanteeg moom bu baax a baax a baax <clears throat> nee na wa yaqif taxaw nag inda ay ndigalam wa nahyi wa an ba tamit ak muy tuub ku la xiini bépp waxtu moo mutarifan day aji tudd bàkkaar ba di rabbihi ñeel borom subhaanahu wa taala subhaanahu tudd naa sellam ko min xable an yëkku ne njëkk muy nekk saaxitan di ko aji sàññ mooy mere ko ci moom fi zaman ci jamono nee na tamit ba tamit mu taxaw bu baax ci li nga xamante ni mooy ndigal yàlla yi ak ay teram maanaam kem tey di tuub ci jamono bu ne tey di tudd bàkkaar yi nga xamante ni maanaam def na ko di ko tuubal suñ borom naan tudd bàkkaar bi jéggalu ko suñ borom ci def gi mu ko doon def te xam ne loolu niixul suñ borom subhaanahu wa taala waaye te biñ ko tuddee ci rek maanaam dama doon def nàngam maanaam bàkkaar ba tax yàqal dama ko fi mu toll nii ndax dafa ko ma doon def tax sax di man ñàkk naa sax ba sax fi mu toll nii ndax bàkkaar ba ma doon def da koy tudd di ko jéggalu suñu borom ngir maanaam da ko doon def te loolu neexul yàlla nag tuub nag fu mu toll na koy def ndax tuub moom ñëpp ko def xanaa bàkkaar yi rek ko wuute waaye nag tuub moom ñëpp koy def ndax ku nekk ci rek ci doomu aadama moom da nga def bàkkaar boobu xanaa bàkkaar moom mooy wuute rek waaye nag ku nekk moom da nga def loolu da nga def bàkkaar boo xam ne da nga ko war a tuubal sa borom su ko defee loolu ko gaawee mu toll te di ko bañ a yeexee balaa meroom suñ borom di wàcc ci kawam ndax bu meroom suñ borom wàccee ci kawam boobaa dootul tuubati ab xolom day tëju waaw soo baa loolu tuubati mooy la alxuraan wax ne xatamallahu ala qulubihim boobaa yàlla day kaste ab xolam walxiyaasu billahi taala wa min surutiha bokk na ci ay sartam nadaamatum rëccu alama ca la xam faatuhu faat na ko minal maasi yi ci ay mooy mos ci laal lu mu di doon nee na bokk na ci sart yi tuub nga rëccu la nga xamante ne moom noonu doon nga ko def te neexul suñu borom muy ak mooy kon la nga xamante ne yaa def muy ak mooy te neexul suñu borom maanaam nga rëcc ko bañ bañ koo defati loolu ci sarti tuub lay bokk ndax tuub daa am ay sart yoo xam bu ci dajee rek maanaam ba mat rek yow xamal ne suñu borom jéggal la kon boo tuubalee boo defee ab bàkkaar te tuub ko te sart yi dajee rek rafetal njort fi sensé ne suñu borom jéggal la waaw rafetal njort fi sensé rek ne suñu borom jéggal la te nga bañ caa delluwaat. kon bokk na ci sart yi mooy nga rëccu may nga xamante ni yaa ngi doon def te neexu suñu borom <coughs> loolu mooy sart bu njëkk. wa niyatun ak yéene fi la fi ma la nga xam baq yi des na min umri ci ak dundam adama awdihi ñàkk ak dellu li kulli ma ci jëm ci lépp loo xam yadur da koy lor ñaari sart yi moom mooy mu yéene bañ di des ci li des ci dundam yëpp bàkkaar boobu nga xam moom la def ba tubal ko suñ borom bañ caa delluwaat. ak beneen bàkkaar boo xamante rek bàkkaar bu mel ne moom la beneen bàkkaar bu ci des rek bàkkaar bu mu def ba tëwoo suñ mu yéene bañ caa dellu ak bépp bàkkaar bu mën bañ caa dellooti waan yàkkoon ak muy nekk waan yàkkoon ak mu nekk taarik al asiyaan ak mooy inkaanam nekk na asiyaan di aji mooy bilaa tawaani ci ak yeexe neen tamit ñetteelu sart bi mooy bu fekkoon ne daa fekkoon mu doon mooy yàlla mu bàyyi ko fi changé mhm. maanaam xam nga bëgguñ ñu ngay def loo xamante ni fi sens yaa ngi koy def par di jéggalu yàlla yaa ngi def mooy gi di jéggalu yàlla waaw day xaw a niru sax maanaam maam ñaawal yàlla xam nga loolu dañ ko waxee noonu sax waaye yàlla moom mënu koo ñaawal yow sa ngay ñaawal kon boobaa waaw maanaam bëgguñu ngay def dara ba pare di tuubal yàlla par fekk yaa ngi ci bàkkaar ba di ko def waaw lu mel ni maanaam ngay bëgg wax loo xam ne dafa xaraam hmm? ba pare naan ah yàlla ma yàlla jéggal de waaye de nangam xam nga loolu nit ñi danañ koy faral def lu bëree bëri mooy bëgg a wax dara mbuur ne lii ngay wax lu xaraam la nga ne ah yàlla ma yàlla jéggal waaye day nangam waaw ah, nga xam yoo xam nga bu baax a baax li ngay bëgg wax lu xaraam la waaye tiiwu rek nga forcé wax ko ah, kon loolu tamit maanaam na ko bàyyi bul ko bul ko def kon ñetti yi mooy nga rëccu baakaar bi boobu mooy bi ci njëkk ñaareel mooy nga bañ caa ci li des ak dund ak beneen bàkkaar bu mel ni moom ñetteel mooy bu fekkoon nga ba ngay ngay mooy yàlla nga bàyyi ko fi saasi <clears throat> wala lahu déet mu koy ñeel te xiirun ak yeexe aw tasaburun wala ak muñaliku li tawbati jëmm ci ak tuub walaa yaqul mu wax asbiru dinaa muñ xataa hadaani ba mu gindi ma saaxibal xofraani borom njéggal wa inna za naka loolu kat alaamatul xislaani màndargam gàcce la maa shaqaawati ànd ak texee di waa reynil xalbi ak tilimu xol inni naka man Serigne Touba aouzu maa ngi muslu minhuma ci ñoom ñaar bi rabbi sama borom nee na tuub bul ko yeexee wala nga di ko muññadiku naan maanaam ah eh, man daal naa dem rek eh, def naa nga ba pare def naa bàkkaar daal pare naa ko yeexee rek daal naa bàyyi ba ci kanam fii noonu damaa nekk xale ta xam naa ne su ma tuubee moom waxoon nañ ma ci ginnaaw ne ma bokk na ci sart yi mooy boo tuubee nga bañ caa dellooti eh, ak ci ci des sa yëpp nga bañ caa dellooti ne kon daal ah, naa bàyyi rek su ma demee ba nekk mag daal dinaa tuubal yàlla waaw te yow xamoon ne sax yow da nekk mag xamoon ne yow ne sax suba dana la fekk xamoon ne sax ngoon dana la fekk xamoon sax da nga fanaan wala ba bay xëy kon bu lu yeexee tuub gi <laughs> tuub gi moom foo tooree del tuub waaw te a boo tuubee pare nga rafet njort bu la saytaane ma ne ba nga delluwaat ci bàkkaar ba nga nga rafetaan njort rek tuubalaat yàlla ndax yàlla moom li feeg yaa ngi koy jéggal rek mu lay jéggal ndax yàlla moo la bindee ci ak matadi kon bul naagu ci tuub maanaam tuuba tuubal suñu borom ba pare ubbitu ko defaat waaye daal bàkkaar moom boo ko defee bul yeexee tuub gi te bul ko muñandiku mhm. bul muñandiku te bul wax ne maanaam man sax man xam naa ne maa ngi mooy yàlla waaye yàlla ci boppam moo mën a mut a gindi rek waaw moo mut a su ma nammee gindi moom dina dina ma gindi su ma nammee gindi ma gindi ma bàyyi mooy ki koy topp loolu tamit maanaam sëñ bi nee na loolu ci màndargam gàcce la bokk aku texee ak tilimub xol maanaam koo fekk ab xolam tilim mu nara a texee di kooku rek mooy wax ne man daay bàyyi ba yàlla gindi ma ndax saa bu xëyee bu soxlaa dara ab dépense wala mu war a wala mu feebar du wax ne maanaam naa xaar ba suñu borom wéral ma xam na ne yàlla lay wéral waaye na day dem ca hôpital ba ji ma fajo ji bu ñàkkee dara du tax ne du toog ne maanaam dépense ñàkk naa kon naa xaar ba yàlla yàlla jox ma ko rek kon day dem daal di def sabablu ngir suñu borom jox ko loolu kon lila la wut alal ak yu jaral su ko maanaam njub gi jaralee rek suñ borom jox la ak njub mhm. kon bul bul wékk rek ne maam yàlla dama nëmbut a gindi su ma gin su ma gindee rek ma gindee ko mhm. ndax yàlla moom ni mu ko xeej alxuraan inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin xattaa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla moom du soppi ni muy doxalee ak mbindeef lu dul ne ñoom ñoo soppi seen bopp rek mhm. kon suñ sëñ bi dafa yi ne inni a'uuzu sama borom ci ñaar yi muy tilimub xol aku texeeri Mm-hmm. wa hakasaa ni ki noonu raddul mazalimi delloo ak tooñaange jami an mboole seen yu addu def na ko li min shurutiha mu bokk ci ay sartam ndal mutii fa aji topp ja li annahu nag moom delloo tooñaange fardun farata la fa man tarakahu koo xamante ni bàyyi na ko mu xafifan ngir woyal ko woyfal ko mu xafifan ngir woyfal ko faqad asa mooy na malikahu boromam nee na bokk li nga xamante nag mooy sarti tuub su fekkee ne maanaam tooñ gi tooñaa tooñ gi nga xam yaa ngi koy tuub maanaam jumul ci sa diggante sa borom subhaanahu wa taala waaye nag tooñaale tooñaa ngi mbindeef da cee bokk am daa mbindeef moo xam ne da nga cee tooñaale su ko defee nag day am sart boo xamante ni da ciy bokkaale mooy nga delloo tooñaa ngi rek kon mhm, loolu da ciy bokku bu fekkee ne tooñ gi duxul rek ci sa diggante sa borom waaye yaag mbindeef la kon delloo teñaa tooñaangi googu boobaa kon da ciy bokk mm-hmm. soo baa nag delloo tooñaangi nee nag moom farata la farata la waaw kon te képp koo xamante ni bàyyi na ko rek ngir woyofal ko jàpp ne du dara moom su boobaa na xam ne kooku moy na borom subhaanahu wa taala sumal mazalimu topp delloo tooñaange ata dikk na xismay di ñaari xaaj am wala benn muy alal en rade wala muy ab der bi xayri may niñ ci dul ak fen nee na delloo tooñaay rek dafa séddlu ko ci ñaari xaaj nit ki benn nga tooñ ko ci aw alalam wala nga tooñ ko ci ab deram jël alalam ci doole nangu ko ci moom te mu la ko wala nga foqaate ko ci moom ak noo ko mën a jëlee ci moom daal te nekkul lu yàlla gërëm walla nga tooñ ko ci deram lu mel ni xas ko wala jëw ko yooyu yëpp rek ci tooñ la bokk loolu nag dala koy leeral mu ne fal yardu na delloo al am amwaala alal ja lil arbaa bi jëmee ko ci seeni borom in wujinu nem fekkeef na leen at daxara jamono bi lartiyaa bi julu ak sik sàkkal nee na su fekkee ne maanaam danga jëloon alal jàmbur ci loo xamante ni du yoon lekkoon ko muy ribaa nga lekk alalam te muyu la ko hmm? nee na nga ko ko delloo boo tu boo boo nag day nag nga delloo alal ci nga delloo ko ko moom ki moom waaw su fekkee ne moom mu ngi ci jamono di dund nga delloo jox ko alalam waaw rek yem ci war daal lekkaale alal jàll da ngay jël alal ji nga delloo ko jox ko ndax moom moo ko moom yow moomoo ko summa idaa lam yuy jotu topp ndem fekkee fu leen fa nag fal yardud na ko delloo li waari sihi moo jëme ci ko li waari sihi moo ñeel way ñeel ña koy doon waaw li waarisihimu ñeel ñu koy ñoo koy doon laa bilaa taraddudin ci ak déng-déng mu ne su fekkee nag kon danga doon delloo tooñaange muy alal ji nga xam moom nga jëloon nga dikk ñeel ah kooku de yàlla def na ne maa mujj na faat wuy ji na borom subhaanahu wa taala kon su fekkee ne ña ko war a doon ñu ciy àdduna dund su defee nag alal ji da nga koy jox jox ñi nga xam ne da nga koy ñi nga xam ñoo ko war a doon su boobaa alal ñoom ñoo koy moom suma isaalam yu jëlu topp ndem fekkee fu ña xam ñoo ko war a doon suma isaalam yu topp ndem fekkee fu leen fa te saddaxaa na na ko sara anhum walis leen ci alal ja ni ki noonu xakaar man ka nga xam ne xaq nee na su fekkee ne tamit da ngaa ñëwoon doon ko delloo alal fekkoo ki ko moom waaye tamit fekkoo fa tamit ña nga xam ñoo war a doon kon nag nee soobaa alal ji saraxeel ko ko mhm, saraxeel ko ko soobaa nag Mm, suñ borom mën na ko jot la ci yool ba waaw sax saxillu na sàkkoo dagan la kulla irdin bépp der akala boo xam lekkoon na bi xiibatin ci jaw aw xasfin wala xas aw chatmin wala ngaañi jalaa feeñ na inkan ne mu nekk na xaadiran aji teew nee na su fekkee tamit nit ki lekk ko woon alal koo tooñoon ci ab deram da nga koo jëwoon baa nga xasoon ko wala ngaañi ko kon soobaa tamit day aajowoo nga delloo tooñaa nga kooku su fekkee ne moom ngi teew mu ngi si adduna di dund mhm. nga delloo ko mhm. maanaam xas ko wala nga jëw ko wala nga ŋàññ ko su fekkee mu ngi dund ci adduna da koy delloo wa amma in fuqidat wa amma in fuqidat ndaal ndem ñàkkeef na leen fal yukthir na bëril xayran aw yiw la allahu ndax leen yajid dana am yajid dana am shay an dara yu waddi bopp dana joxe xaq kullim xaq képp ci ñoom bi ci moom mustaxfiran di aji jégglu wala yaruju te muy yaakaar af war a bii ba am subhaanahu wa taala nee na su fekkee dafa dikk doon ko jégglu war fekk moom it yàlla jël na ko moom moom na ko wuyu jën a kon nag su boobaa xas ba wala ŋàññ ka wala maam jëw ka mu dékkul loo xam ne dañ koy doon noonte kon mun ta dem ca ñi ko war a doon wala ay mbokkam ne leen bàllin ko déedéet ah mu bëgg leen koo delloo déedéet loolu mënta nekk kam tooñoo rek moom moo ko mën a jiikeel te comme kon koo faat na la muy def moom mooy fas yéene nag li des ci ak dundam mu jiim ci góor góorlu nag ci lu baax ci aw yiiw ngir maanaam euh, bu ëllëgee yow ma xiyaam buñ dajantee ca bis ba mën ko ko delloo mën ko am mën am lu mu ko mën a fayee tayit ba paree tamit di ko ñaanal aw yiiw ak njéggalu suñ borom yiiw ak njéggalu suñ borom sax amaana maanaam bu ko suñ borom fayee ba liggéey mën ko caa fayit moom mhm. kon na bari aw yiw ak di ko ñaanal di sàkkul maanaam kook nga xam moom la tooñoon njéggalul yàlla ak njéggal njéggalam ak yërmaandem di ko sàkkul aw yiw ci fa nga xam ne fa nekk muy bar sax après moom ci waxam tamit muy bëri aw jëf ju baax ngir bu ëllëgee yomal xeex mën ko cee fay taw pare nag yaakaar suñ borom jéggal ko mhm. kon loolu moo aji ci li mooy delloo toojaay te delloo tooñaa gi nag liñ ci foofu tamit moom li ca mën a maanaam xel mooy saa boo tooñee sa morom doomu aadama rek tooñaa nga tooñaa tooñaale nga sa borom mhm. ndax yàlla moo la aay moo la woon na bul tooñ kenn kon boo tooñee sa morom doomu aadama tooñaale nga yàlla kon da nga jégaluwaale sa borom subhaana